léegi la nga dégg ko ruq ne ci ruq génn wax nanga wax lépp ñàkk ci paa bi rek a ko yóbbu waaw ah. rabbi anni laa wa rasulu wa ahlu badrin wa atani suulu kon loolu mooy mooy xuuf paa sëñ bi dafa xuuf waxee naa ko gaañu nu ne l'homme prix naa ko ci contre son camp camp ba camp <laughs> yépp mais xuuf paa rek yàlla la gaa yi jëkkalante sëñ Tuubaa jëkk ci rasulullah sëñ Tuubaa jëkk ci alquran sëñ Tuubaa jëkk ci xabaatu rabbi wa rasula wal kitab